jox te monsieur le maire moo ko fi mas a def waaye monsieur Abdou ñu ngi aussi mi ngi def participation mi ngi indi toujours ay bourse di ko may étudiants yi kon nag loolu tamit ñu ngi koy gërëm waaye ñu ngi bëgg ngeen yokk ko bu baax chaque année kenn ku nekk ci yéen ñu ngi koy sas mu génn nu 1 million joxal nu étudiants yi bu ko defee étudiants yi nekk yéen ci yeneen régions yi ñoom tamit mana am loo xamante ne si dañ ko def fa mu nekk donc moment bi moment bu rafet la moment bu ñu kontaan la ñun ñëpp. Abdou nee leen yi def naa ko 3 millions ren. dinaa yëkkati 1 million yi sama bopp teg ci muy 4 millions. dégg ngeen ko monsieur le maire nee na subvention ren yi na ko def waaye 1 million bi ma wax léegi dina ko jël dolli ko ci mu nekk 4 boo xam ne yéen yéen a ko demoon incha allah loolu nag daal saluer ñu ngi leen saluer bu baax monsieur Abdou ñu ngi noonu monsieur le maire def loolu it lañ lay sant loolu la ñu lay ñaan yow nga defal ñu loolu incha allah. waaw bourse pour commune de bourse bu nekk dina am ñetti at de formation te say waajur duñ fay ñoo lay fay remise remise bi ak kontante jërë ngeen jëf eh, ana di c'est vraiment c'est attend de vous monsieur ok d'accord waaw xam nga dige may tuuti lii ngeen gis nii tey lii la président Macky Sall santaane te incha bi noonu laa koy defee Abdou ñu ngi jox naa la loxo bis ni ki tey ñu ànd jàppale président Macky Sall kii li nga xam ni mooy deuxième mandat bi yàlla dimbali ko ba mu réussir incha bi Sénégal jëm ca kanam Thiénaba jëm ca kanam merci. ko Ahmed Tidiane Sall Maktoum dafay wax ne nit bu nekkee ci àdduna ñaari mbir rek la war a doon soit day nekk otage système. wala mu nekk acteur ñun nag dama bëgg ñun ñi fi nekk ñu fas yéene nekk ay acteur mais bañu nekk ay otage donc otage du doxal dara on est des jeunes nañ jéem a góorgóorlu ñëpp pour kanam a jëm kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah